gars defe naa ñun ñëpp ñoo dégloondoo Pape Alé Niang je viens juste de finir te gëm naa ne ñu bari ci yéen même chose Ah. Sénégal qu'est-ce qui est il devenu mon pays Sénégal lan la donne parce que ce qui est extraordinaire c'est cette' di nga même les anciens présidents Abdou Diouf mi il n'a pas pipé moom mi ngi xool li xew Sénégal yépp toog ci ruqam ne pat Ablaye Wade mi ngi dund celui qu'on appelait un patriote mi ngi toog ci ruqam ne pat Ablaye Wade waxul dara kilifa diine yi kilifa aada yi ñëpp a ngi toog ne pat système système bi démoliru na tas na de waaye ñëpp a ngi toog ne pat lan ngeen yaakaar ne moom mooy xew sama laaj la rek ndax man nag moom doomu aadama laa comme doomu aadama yëpp lan ngeen yaakaar ne moom mooy xew bu dara jotee président Ousmane Sonko da ngeen di yaakaar ne da ngeen di toog seen kër yi ne alhamdulilahi rabbil alamin ñëpp naan njarum sow ne ah vraiment coono ji wàcc nañu ah vraiment Sénégal am nañu jàmm nag léegi loolu ngeen yaakaar xam naa ñu bari ci yéen loolu la ñu yaakaar waaye l'apparence est trompeuse maanaam yenn saa yi nga toog yaakaar ne day taw asamaan si xiin te du taw. yenn saa ngay xol asaman si mu leer nañ nga yaakar ne du taw mu jor asaman taw usman songo nak de doomu adama la rek comme doomu adama nit la nit la de te dafa am jabor, dafa am soxna am ay doom bëgg alxuraanu yalla bi nak man de bokk na ci li ma ko nawee mooy rafet ak bi mu bëgg rek bokk na ci li ko nawee ndax nit su bëggee alxuraan ñaareel du doon fenkat du doon workat du doon njaalookat du doon euh, kuy trahir nit su gëmee alxuraan parce que alxuraan alxuraanul karim ñun eh, ñi ñi ko xam boo leen laajee luy alxuraan dañ lay ne mode de vie la modèle de vie yàlla dafa wàccee alxuraan pour mu jàngal ñu suñu doxalin boo xoolee alquran lu waa doomu aadama yëpp mi ngi ci biir alxuraan lu doomu aadama war a def yëpp ma ngi ci biir alxuraan doomu aadama maandu teem ak baaxam ak lépp lu mu war a def pour def lu baax mi ngi ci alquran te boo xoolee beneen côté bi yi nga xam ne moom la Ousmane Sonko joteel mënuñu tari benn aaya alxuraan bu jub du Macky Sall du Farba Ngom du kenn ci ñoom idi moom dafa jël quelque aaya ci alxuraan bi mu mokkal leen lool fu muy dem di bokk alxuraan bi di sos di duul ak tey ñu toll foo xam ne ci histoire Sénégal histoire moo jàmmarloo ak ñun ndax daanaka ba ñu doon xeex ak yéen bis bu ne di leen duma di toog seen biir yi dafa am ay kilifa yu daan woote ne ah non teg leen lépp ci suuf bàyyi leen lépp mu sedd ñu daan bàyyi mu set ñu daan teg lépp ci suuf tey Sénégal toll na foo xam ne ñëpp a ngi seetaan ñu jàpp benn doomu Casamance Casamance ma nga xam ne yëngu na ñaata ak ay décennies ay ay Casamance yëngu na ay dizaine ay vingtaine d'années ay trentaine quarantaine d'années ñu doon ñaan yàlla Casamance set ñu dem ba benn espoir bi Casamance am muy kenn ci ñoom kenn ci sen dom muy nak dom ju jujuk, dom ju jub dom ju degg ngeen bëgg ko jël jël bakanam à tout prix ben groupe délinquant bu dajalo rek ben groupe samba boy ben groupe cartel ngeen dajalo ngeen ne da ngeen di jël bakanu doomu aadama bobu au détriment des sénégalais et au profit de la France manam sénégalais yi ñom Sonko lañu bëgg ngeen ne du am yéen Macron nee na moom Sonko arrangé wu ko ngeen ne dañuy jël bakkanu Sonko jox ko Macron au détriment des Sénégalais tay rek ma ngi gis ben bateau bu euh, ki don wane encore espagnol yi ben bateau bo xamné ils ont pris des rescapés encore combien de jeunes doit-on perdre avant que nous disions non à cette dictature à cette tyrannie à ces mensonges à ce gouvernement mensongère, à ces, hypocrites, hein? à ces malcroyants, ni nga dara ñu nekk ci mi doomu di duma ils ne sont même pas au courant que lolu du nit nit gis man yàgg naa xam ne Ousmane Sonko du nit ku violent yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est l'homme le plus pur au monde góor bi gën a nooy ci góoru yàlla yi mooy góoru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il du wax ci kaw fu mu romb xet bu neex bi dugg la ku fu mu romb xale mu sukk di waxtaan ak moom muy boot ay jabaram di leen reetaan loo di leen sourire loo di leen demal marché di leen toggal ah di leen woyal bi ma dégloo Ousmane Sonko jabaramee di wax tey il me semble que c'est quelqu'un comme ça pas une comparaison directe mais indirectement vraiment moom roy na ci Mohammed sallallahu alayhi wa sallam topp na ci jikkoom yu baax yëpp ndax góor buy dem ba buñ koy seedeel dañuy ne ah vraiment du nit ku bari sow du nit ku bari problème ngeen yaakaar ne boo leen jëlee bakkanu Ousmane Sonko ni yéen miy jubilé di ngeen jubilé kenn du leen menacé dañ leen di bàyyi bi yoon seetaan leen kenn du leen menacé on va vous regarder dañ leen di bàyyi ak seen xel yéen am ngeen xel am ngeen xalaatukaay am ngeen xol dañ leen di bàyyi ngeen jël décision finale bi dañ koy teg seen loxo ñu bàyyi yéen ngeen décider ko boo leen yaakaaree ne jël bakkanu Ousmane Sonko mooy solution bi jël leen boo leen yaakaaree ne jël bakkanam du solution bi mais moi si j'étais vous j'allais laisser le président Ousmane Sonko rentrer chez lui parce que nous voulons tous habiter dans un Sénégal prospère dans un Sénégal de paix dans un Sénégal de prospérité yonent Allah Mohamed laa leen di yeggalil gis nga le boobu yëpp bu jihaad jotaan day dem jihaad day xare ji te day gagner. il gagne ses combats tous ses combats am na ay combat yo xam amon amoon na tuuti kat xat ay baarul xuud ak yooyu amoon na combat yoo xam ne am na tuuti ndax day test jamam. donc jàppee leen mbirum Ousmane Sonko bii test ndax ku la duma Ngajai yoon nga jaay ko doole état boo xam état moo la ko jox du sa doole de parce que du waa APR la ñuy xeexal kak benn groupe gangster bandi délinquant

ñun anduñu ci li Macky Sall di def waye suñu loxo dafa tay dafa yewu suñu ginnaaw donc Ousmane Sonko jappé len né combat bi ni yalla mo len lal basang yalla mo len tal tendre piège Macky ya gi nga andal né la dina xol yow Ousmane Sonko jekku na la ñaar yoon rayu la jekkaliwu la yow Macky dina la may ben opportunité nga jekku ñu xol loy def yàlla moo la may lii rek yàlla moo lay test. et je vois que toi tu es bête man xam naa ne da ngaa dof comme ça doom yi ndax sa caat bi démb rek gis nañ ko moom muy tux yàmba xam naa sénégalais yu bari tëb di dal wala bu leen ci dugal affaire famille je ne vois pas pourquoi un petit comme ça di tux yàmba gisuma ko gisuma raison parce que bu doon sama doom c'est pas quelque chose qui est accepté doom ja baay bu nekkee toxkatu yamba yaay nekk toxkatu yamba baay nekk naankatu sangara yaay nekk dom yaram doomu dom yaram rek ngeen meuna a jur waaye il faut savoir que les Sénégalais feront face malgré vos manipulations vos intimidations les Sénégalais feront face te ñun de xawma kenen mais ñun diaspora bi tay lañu gëna gën ñu ngi dégg lépp ñu ngi gis lépp waaye billaahi wallaahi tallaahi Macky dellul ginnaaw te comme ni ma ko waxee nag Abdou Diouf tu as trahi l'histoire du Sénégal tu as trahi ton serment Abdoulaye Wade tu as trahi l'histoire du Sénégal tu as ton serment parce que li ngeen gis tey ci histoire du Sénégal ci démocratie yéen xam ngeen ne du dëgg du yoon tey mënoon ngeen génn dénoncé ko tey rek ambassade Amérique bi nekk Dakar bind na communiqué dinaa leen ko liiral communiqué bi ambassade bu Amérique bu dakaar bind na communiqué xam nga ñun il faut pas qu'on se trompe wala ñuy naxante ci suñu biir ambassade bu Amérique tey bu Dakar bind na communiqué communiqué bi laa bëgg a gis ma liiral leen communiqué bi dafa ne naa leen ko liiral léegi communiqué biñu ñu bind ok voilà may leen ma touti mu ñëw ma liiral leen communiqué bi ngeen jéggal ma nak bind yi dafa sew te dafa sori donc dama koy jéem agrandir donc dina ko agrandir ma lire ko do to the best of my ability mu ne en tant que en tant qu'ami et partenaire fort du Sénégal les États-Unis sont préoccupés et attristé par la violence et les dégâts dont nous avons été témoins dans les nombreuses, nombreuses régions du pays, nous présentons nos sincères condoléances aux familles et aux amis des personnes décédées et nous souhaitons un rétablissement rapide et complet aux personnes blessées. Le peuple sénégalais peut, à juste titre, être fier de ses bons résultats en matière de gouvernance démocratique, d'état de droit, consistance pacifique, nous, nous exorcerons toutes les parties à exprimer leur point de vue de manière pacifique. Spokesman Matthew Miller gouvernement Amérique Abdou comme le Sénégal souverain nous que ak jafe-jafe yi nga xam ne Sénégal a ngi koy dund mais aussi ñu am ay kaddu jëmale ko ci gouvernement wu Sénégal ndax encore état bu souverain la te diplomatie dafa sensible donc ñu yëkkati ay kaddu jëmale ko ci booru état bu Sénégal tey Juan Branco dem na dajeek ay responsable de droits de l'homme Sénégal mingi yegg ci tournar bu bizarre ci histoire am ci histoire bu bizarre ci histoire am j'ai pas peur ñun ñu mais je suis un peu inquiet que Macky amul xel dina jël bakkanu Ousmane Sonko té bu ko défé mom dina dee njabotam ñep dinañu faatu que le Sénégal dina nekk ci guerre civile dootul stable dina delu ginnaaw dina raw sax Libéria ak ay Rwanda ak yenen réew yi parce que deret dina don ndox ci tali Sénégal yi ken dotul amati jàmm je pense que lolu maki war na ko te djel ko en considération très sérieuse parce que très sérieusement j'ai peur lolu la mala wax j'ai très peur je suis très inquiet. J'ai pas peur, mais je suis inquiet. Voilà. ragaluma mais dama tiit ragaluma de waaye tit na pour Samaréo. réew waaw tiit pour Samaréo. parce que man xam ce li may wax li malen di wax ko comme li malen leen wax du menace je vois ce que je vois je connais ce que ce qui est ce qui sont capables xamna sénégalais yi ñu capable xamna man rek luma capable ak keneen ak keneen voilà malgré menace sen tiaxan yu ndaw ndawaat yi ngeen di gis vraiment on doit prendre le Sénégal très sérieux voilà nañu jël Sénégal sérieux de té lu way di def nañ ci sóoraale ce tour parce que français bi dafa né chacun aura son tour chez le coiffeur loolu la tubaab bi wax kenn ku né nenañu sa waxtu dina jot ci watkat ba sa heure dina jot watkat bi wat la kenn ku ne nak touram dina jot ci watkat bi voilà parce que li ngeen nek di def France mi le fep ci Afrique Macky Sall bëgg bot ne ko legui la nga waron am Côte d'Ivoire am ko Guinée am ko Mali am ko fi am ko fële lepp Sénégal mo la koy jox moy problème amna France 500 milliards de dollars la donne jëlee Afrique par année 500 milliards de dollars la France donne Afrique par année C'est vital. 500 milliards c'est vital il n'y a pour mu 300 milliards de dollars parce qu'il que presque 300 milliards de dollars parce que Guinée il Mali a Guinée Niger ñak Burkina Faso donc ñak na 300 milliards de dollars 200 milliards de dollars rek la déssé digënté Sénégal ak Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire peut-être 120 130 Sénégal peut-être yenen 70 wala 100 da ngeen di comprendre né Macky Sall dafa dem yenu français yi né len li ngeen ñak Niger ñàkk ko Burkina ñàkk ko Mali ah ñàkk ko Guinée ñëw leen Sénégal man dinaa leen ko jox dinaa leen créer géeju ndaayaan gi fële ma créer fa port loo leen bëgg a génnee Kédougou bi li fa des akas néew ma génne yeneen village village yi ngeen jël li des ci or bi ma jox leen ressource naturelle u Sénégal yëpp ngeen yóbbu ngeen yóbbu ko ngeen bàyyi ma rek maak sama njabot ñun ñu di yaata yombe nek ci dekk bi di def lu ñu neex buma falé ki fal li fal kële Macky Sall parewul bàyyi réew mi lii suñu problème ndax xam ngeen ne kuy dem xana di nga wajal sa bop nga taggo dedet Macky Sall dafa bëgg dafa leen roubé dafa nax sénégalais yi mu roubé leen ne leen day dem wala je ne ferai pas wala nangam nangam wala mu ne sauf en condition extraordinaire imaginez góor ne ah mande de damay sama soxna sauf que mu xégn parfum mu xégné parfum de du ma ko fass imaginel mu vraiment damay fassé sama soxna bay ko mu dem mais attention bu xeeñee touray wala mu xégn parfum du ma ko bay Macky Sall wax sénégalais dafa dina bay Sénégal sauf que situation extraordinaire Macky Sall situation extraordinaire moo xew ni ci Sénégal pour moi. Il y a un ñun Macky Sall il nous respecte c'est bi Macky Sall respecté wul sénégalais yi sëñ bi Macky Sall téguñu fenn bay Macky Sall gëmul Sénégal Macky Sall du patriote Macky Sall du patriote non non non il faut bien comprendre né Macky n'est pas à négocier avec genn wàllu doomu Sénégal yi dugg nañu gaal dee nañu Sénégal lii dee ci mbedd mi te mbedd mi malheureusement li sàll Sall boom parce que manifestation yi passé defe naa juróomi nit wala quatre personnes ñoo dee te dégâts matériel bi bi yoon la gën a ëpp que yeneen manifestation yëpp te pourtant defe naa quatre wala cinq la rey c'est beaucoup nag mais imaginez ñaata nit ñooy dee ci géej gi il y a presque 1500 morts en une seule année. Presque 1000 morts en une année. Nous ñëpp Macky Sall moo leen rey nag parce que Sénégal bu nakari ak xol buy metti mo duggal ñu bari légui ci géej gi dañ ko def dem marché ñu dugg ci géej gi dem Europe Barça wala Barça. légui comme dem marché nga ñëwaat Lolu moy dëgg mon pays va mal très mal gars suba Washington la Washington DC suba Washington DC la ñu woote suba Washington la woote dañu woo Sénégalais yépp ci kanamu ambassadu Sénégal bu nekk Washington ñu jo dox jëmale Maison Blanche suba foofu lañu ñu woon nit ñi tey dama seetaan soxna si. soxna Ousmane yi soxna Kébé ak soxna Jamanka ay soxna ay soldat ay yaxu ginnaaw yu dëgër backbones those ladies tough lions ay salaamaaleykum waaw ziar naa la oh macha allah ok mais léegi dama nekk euh, en direct jëluma la ci kaw nag ci suuf la mais bu ma paree moo woowaat la dégg oh macha allah jërëjëf merci merci thank you voilà donc gars je pense que li xew te ñun ñëpp ñu gis ko is beyond sad c'est plus que triste bi ma xoolee soxna Ousmane yi ana Jawanga ak Soxna Kebe ñu doon ay soxna yu maandu pourtant mënoon nañoo créer boucan à travers le monde si waaye defuñu ko ñu ngi toog seen kër yi maandu gore tey nag génn nañ wax nañoo àddina kër yi Dakar la de xam nga wax ju ne dafay am seede wax ji bu yeboo ngeen dugal ko seen archive yi dugal ko seen annales yi parce que Macky Sall bu saisir saisirul occasion bi nga xam ne Ousmane Sonko waxoon na ko ne toppeewu ko dara il n'a pas saisi cette occasion soxna Ousmane Sonko yi ñëw nañu ñaan ko njëkk ak teranga loolu communication la it's a communication man par contre bu ma doon Macky damay tiit damay na ñii dañ ma doon avertir dañ ma doon dànkaaf ñii dañ la doon dànkaafu ragaluñu la de gis nga loolu ñaana ka doon ñaan ñaan la ñek lolu l'islam wax l'islam dafa ne boy ñaan nit ñaan ko ci ñek ak teranga bu boba bu bañee bu xex ñewé daggal bop bi loolooy am de ñi dañ la ñaan ci ñek ak ragalu ñu la de bu ma doon yow nga réagir très rapidement wala nga bayyi ay euh, maymuna Ndour Faye ah ay ben pom ak genn wala nit yu dof yi naankatu sàngara katu yamba yi nga jël nga embauché ñuy saga nit hein ah mëna Ndour fay ñun xam nañu la jëkkëram mom gendarme la mom moy joxe ay information mom moy photo Ousmane Sonko sa buñ ko jappé mu yonne ko mom moom gendarme la sa buñu jappé Ousmane Sonko photo yi ngeen gis ñuy tass ci mëna Ndour fay lay jaar ngeen pare dem jëli benn foo profil benn page bu fos dugal si benn soxna boo xam ne duma tudd turam ndax lu nekk ci senegal moom moo koy génnee Pape Malick nduur nekk ci ginnaaw may Maïmouna Ndour fay nekk ci ginnaaw une pomme et nekk ci ginnaaw ngeen nekk ci page bi di ruube senegal di taal réew mi ngeen nekk rajo Mille kolin di taal réew mi di xamb taal di xamb di taal bis bu Sénégal takkee yéen ak seen famille doo leen ci mucc de yéen ñëpp di ngeen takk ba jeex takk ma wax leen gars yi ñu ngi woo ñëpp suba ci kanamu ambassade bu senegal bu Washington DC fépp fu waay nekk mën a nekk ci Amérique jëndal sa billet te daw te ñëw wees Fatima fu waay mën a nekk ci àdduna bi nga jënd sa billet ñun ñëpp dinañ fa nekk incha allahu rabbi tous les personnes seront là-bas ñëpp Sénégal yëpp dinañ fa nekk Michigan dina fa nekk Ohio dina fa nekk Chicago dina fa nekk New York wax noppi Washington DC Maryland Virginia wax noppi DMV ak feneen ak feneen ñun ñëpp danañ fa daje suba incha allahu rabbi tey ma déglu soxna Ousmane Sonko yi ñuy wax te xamna na radio rajo colline wala réseaux sociaux mil colline jogat nañu di ñu ngi waat di ngagn di wax lu ñaaw waaw Ousmane Sonko day li waaw day tapalé waaw day nangam ba mu ne club dé sen loxo après ñu ray leen yéen ak sen yaay yépp ak sen doom yi après nak ngeen xol Sénégal dérëb bi di walangaan ngeen tok dem lirat seni ay commentaire lirat seni ay post ne billahi suñu xamone duñu def ni moytu leen te ngeen xam ne yàlla dafa am te suba dafa am nañu bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi këram caaxaan ak banditisme yorul ab réew réew sérieux moo koy yor gars yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox rendez-vous incha allah suba Washington DC <clears throat> fa la ñuy nekk di ngeen fa gis sénégalais sénégalais diaspora bi yëpp bu إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته